Salut les amis de sport TV, merci encore de la confiance en nous voler, merci de vous like, merci de vous abonner.

Algérie également Maroc et Nigeria beaucoup ci kan lañ ko fas yéene jox loolu lañ fas yéene indi détails indi également chance au Sénégal pour daal organiser mais d'abord il ki a également Moïse Cheikh qui est gis joueur donc foofu noonu de FC Balch Suisse Momdal actuellement donc semaine bi passe. dañ ko tànn mu de ci cette euh, journée bii donc euh, équipe type euh, de la journée nek joueur également militaire là. mais il fait def preuve lui qui est passé également par Lille Cheikh actuellement donc il ngi évoluer donc côté de la Suisse, donc avec Bâle, donc Migi Wanebopom. Donc on lui souhaite bonne chance parce que lui aussi, son objectif, c'est de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal et qu'il est en train aussi de progresser petit à petit. dans le Sénégal je jamono ji moom ah li may wax rek jongoma la boo Je suis bëgg def les yeux doux comme nous ñu ko waxee ki également mooy Pep Guardiola moom actuellement moom dafa kontaan ah nee na na ci moy ndam li Manchester City am ko ci Manchester euh, United alors que ci jamono jooju nag dafay kon United tegale ñenti ndam yo xam euh, da koy doone neen équipe ñoom City ñu dal di koy dóor mais kii tamit bokk na ci tax City di am résultat yu baax muy Kevin De Bruyne nga xam actuellement c'est le meilleur le cinquième meilleur passeur de l'histoire de la Premier League avec 94 passes décisives Kevin De Bruyne l'ancien joueur de Chelsea parce que Chelsea da nekkone en hein, carrière am doxul mu dem ci Allemagne daal di dellu parmi les défenseurs les plus chers au monde les dix premiers ñi ngi ni ah hein, Diaz moo ci kaw De Ligt Marquinhos Fofana Skriniar Guardiol Araujo Koundé Bastoni Militao ñoo ci nekk gis ngeen ne kii di Kalidou Koulibaly bokk ci par rapport aussi joueurs yi nga xam ne ñoo gën a décisif ci début championnat ba léegi mi ngi nii Erling Braut Haaland la Neymar aussi kii di Lionel Messi la Pulga li ñu impliqué wu ci bi nombre de passes ak occasion yi ñu créé loolu yëpp la ñu daal di waxtaanee Coupe d'Afrique 2023 le Sénégal donc champion euh, champion d'Afrique 2022 ñu ñaanal 2023 Sénégal jël ko ah gars yi ñuy wax ah. donc aussi 2025 na gars yi kan moo organisé loolu la ñu wax fi mu nii mooy. Guinée donc Guinée moo waroon organiser 2025 mais waa CAF dañ ko nangu jox ko nag euh, dëkk boo xam ne moom lañ jàpp ne moom moo gën a taxaw pour daal di koy organiser loolu nag Algérie moom fi mu ne nii wax nañ seen candidature pour daal di organiser li nga xam mooy CAN 2025 bi donc Algérie ñoom 2025 ñoom lañ ko bëgg a organiser ñi nga xam mooy Djamel Belmadi bi ñu ko daal di nërmeelu ñoom ci premier tour yi ñoom nag ñu ngi wax rek waa Algérie ñoom. xam ñoom dañuy wax rek seen équipe bi nag def nañ ci yenn coppiteef ku ci mel ne Bounedjah gisatuñ ko ci Bounedjah bi nga xam ne nag moo crucifié woon Sénégal ah ci coupe d' Afrique bi sonaloon ñu lool lool lool lool moom nag euh, bokk na ci nga xam ne joueurs léegi feeñatuñ ci équipe algérienne bi et y' a aussi le Maroc avec également le président un président très dynamique muy Fouzi legza ah, donc nekk koo xam ne aujourd'hui ah moom au niveau du Maroc mi ngi def travail bu exceptionnel et que Maroc tey mooy candidat favori bi sax pour organiser Coupe d'Afrique 2025 parce que c'est une infrastructure c'est i voilà une ligue, c'est seen taxawaay gis nañu équipe bu boo xam ne la dëkk la boo sur le plan infrastructurel ñom ñoy ñëk ci Afrique ba tay ñom sax ñi nga wax na lutax tax duñu organiser Coupe du Monde ki xamné également moy Walid Regragui di seen sélectionneur national équipe bam ñoom it ils ont envie de recevoir cette Coupe d'Afrique en 2025 pour daal di koy jël ndax Maroc mom euh, Coupe d'Afrique dafa mel ñom ñaar diggante hein comme on dit rek Adam ak Awa quoi ñom ñaar dañuy ànd mais duñu mës a donc lool dal mom mo ci am par rapport di Coupe d'Afrique bi moy dañuy dem ba waaj koy téye mais mu daal di le Maroc donc grandissime euh, favori pour organiser mais aussi il y a les Super Eagles du Nigeria, Nyomit de dañoo bëgg organiser Coupe d'Afrique organisé gis ngeen tamit ñoom bokk na si ñi njëkk jël avec ñi nga xam ne mooy ñoom Cameroun gannaaw Cameroun nigeria ñoom ñoo njëkk jël trophée bu bees bi nii di Coupe d'Afrique bi donc aujourd'hui nag ñoom seen bëgg-bëgg aussi mooy daal di koy organiser donc ñooñu ñooy nekk véritable adversaire euh, yi nga xam ne ñoo war a mën a xëccoo lii di euh, donc Coupe d'Afrique Guinée bi nga xam ne nag gars yi gis ngeen ko benn infrastructure farewul benn moment ñoom dañoo bëggoon a boole ak Sénégal Sénégal tamit benn problème mooy ñun stade bu naan tax ñu naan stade dëggantaan dëggantaan benn stade moo fi nekk stade Me Abdoulaye Wade mata Ba nag néewoon na un moment lolou nañ ci si par rapport équipe nationale du Sénégal que ne ñom organisé démé ba a organiser ay coupe d'Afrique Afrique bëgguñu ko co organiser dañu bëgg Sénégal daal di koy organiser amal ko ci comme le Sénégal nak premier pays africain au classement CAF également au classement FIFA ñu ñoo ñëk ci dëkk yi nekk Afrique Sénégal nak eh, jël li nga xamne moy Coupe d'Afrique bi daal di koy jox benen dayo mais nak pour man sincèrement le Sénégal 2025 lu bari mën na ci xew ah mën nañ ko parce que 2025 jotagut mais pour euh, de un peu concurrencer le Maroc dina xaw tagatembe mais comme on dit qui ne risque rien n'a rien le Sénégal va défendre son titre ci CAN bi di ñew bu ñaan Yalla ñu gagné ko buñ ko gagné tamit organiser waat après CAN suñu dëkk na nek loo xamne luy neex la mais tout dépendra également ci li nga xamne moy proposition de toute façon wa CAF dinañ xol proposition yépp dal di ci table waxtaan ci xol bi gëna a pour ñaar di koy jox mais ñëpp japp nañu daal actuellement grandissime favori bi dal équipe bi donc di euh, Maroc la Algérie aussi mi ngi en embuscade Nigeria mi ngi fi Sénégal aussi am na chance am étant donné que depuis 1992 Sénégal organisé ko gars c'était les informations que je voulais vous donner yéen ban gis-gis ngeen am ne Sénégal war na mëna organisé organiser coupe d'Afrique bi di ñëw wala ou pas jaa ngeen